waaw personnellement defoon naa si sorti waaw mais defoon naa si sorti en tant que xalifa rappeur waaw parce que xalifa rappeur nekk na koo xamante ni tamit jàng na il a fait les bancs noonu la demee te am nañ xam-xam xam nañ àdduna yu baax ni muy demee soo Omar Diagne nekk na maanaam citoyen sénégalais boo xam ni modèle la bu ñu amoon sang yu mel noonu moom saawaay xoola xëy na réew mi moom dina gën a jëm kanam daal xam nga lu ma la te gi aussi dina gën a jëm kanam mais même même. noonu la demee yaa ma gën a xam Sénégal moom saa xoola dëkku naafeq la waa waaw naafeq yi moom jamono bii ñoo fi ëpp moo tax sax xëy na yàlla nattoo ñoo salmak yi xam nga man xam la gëma ah, islam benn la dina yu benn la sama àqu laay taalaanax laay wax yàlla xam na li si xol yi barki alxuraanul karim li ma dem Touba mënu ma ko Tiwaawoon noonu Tiwaawoon moom mun naa ne sax si famille bi laa bokku maintenant Baye taalibe Baye Ñas laa ñun fu ne ñuy dugg si taan bi amul fu ñu damul Sénégal xam ma lay wax nii tey si tey saa gis nga Baye li xew Sénégal nii ba dafa ma naqadi booy booy ay gars yoo xamante ni dañuy génn di saaga sëriñ yi ah phénomène boobu am te loolu yëpp ñu ko créé benn groupe personne bu ndaw la ñoo xam ne dañuy jéem a dundee tarixa bi dañ koy waxa ah, ñun ragaluñu dara dëgg rek saa waay moo ñu ñor. tëral leen ñu renn ñu saawaay xoola dëgg na ñuy wax saawaay xoola ba paax bi ni muy traversé suñu baat barki laa ilaha illallah groupe personne bu ndaw ñoo xëy am na sax ñoo xam ne barki demoo Ndiaye ay woyu nañ woon Sénégal fii ñëpp xamante nañ groupe personne bu ndaw ñoo xëy yaa ma gën a xam quoi xam nga bëgg dundee tarixa yi léegi nan nañ ko bëgg defee parce que léegi nit yi ñoo seetaane waa yow pour am bëgg maanaam yow nit yi bëgg la da ngay génn saaga sëriñu diw waaw la moo tax ngay saaga sëriñu diw te yow sa sëriñ bi nga gëm yow saa waay loolu noonu bu ko fekkee woon say day dal sa kaw da lay dàq wala boog mais non non ak ay seytaane yu bon ay média yoo xamante ñooy ñooy créé yooyu noonu xam nga yaa ma gën a xam télé yi non loolu du télé yëpp sax am na ay moom yoo xam ne ñu ngi liggéeyal islam di contribuer maanaam si tarixa yi maanaam gën a doon benn suudewu di contribuer si dialogue sax islamo chrétien boog gën a wu Sénégal ñëpp doon benn mais tele franc-maçon télé franc-maçon seytaane yu bon yi lépp ñoo ko créé bu ñu wooyee diw na ko xoola waxalu la neex yaa ma gën a xam ah. waaye di nga am na ay wax yu bëri yoo xamante ne nii moo tax waxu Cheikh Omar Diagne bi ku fi nekk naan da ngay tëbax a dal wala dara barki alxuraan naa fekk nga. ay jamono passé yàgg na maa ngi dégg ñu naan xaw ma ay xaw ma benn waaye naan xaw ma xaw ma naar nañu gëm xaw ma affaire yoo xam nga loolu saaga la ay wax yoo xam ni mun na taal réew. loolu bu ñekkoon nekkoon dëkk dëkk bu normal saa waay xoola amaana sax xëy na xoola procureur des autosaisir si saa si yaa ma gën a xam mais non non après dañuy def nii calmer am kenn koo xamante ne nii maanaam nar boobu ngay wax moom la gëm jàpp benn en ñëw tamit xalabaat waaye bàyyi leen seen yooyu yéen yéen te yàlla tax bàyyi ngeen bàyyi seen yëfu seytaane yi seen yëfu yahood yi da ngeen bëgg sax yéen diviser islam islam nañu bëgg diviser du sax tarixa bi kase xam lu ma la wax ci yàlla rek a tax Cheikh Omar Diagne moom. gëm naa ni jullit la quoi du dëgg te yaakaar naa ni moom saa waay même bu defee erreur sax bu jeexe jeex na quoi surtout que ni dégg na saaga nañ ko def nañ lu ne. te yaakaar naa surtout ak période bi ñu toll nii moom di xeex góor jigéen di xeex injustice sax yeneen ak yeneen am nañ ay yeneen priorité lu dul saa waay xam nga naan ñun julit yi ñu ngi xeexoo suñu biir ndax ay affaire de. voilà quoi xam nga nañu bàyyi fanatisme yooyu nañu bàyyi yooyu te yàlla rek a tax il faut se concentrer autour de l' essentiel xam nga lu ma la wax waaw l'essentiel mooy la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam suñu digganteex suñu borom suñu digganteex suñu morom ndax mooy société bi ñu defar suñu réew mu jëm kanam kenn du bëgg dem kaaw waa kaaw ñooy bugg di ñëw fii nii ñu xeex fi góor jigéen ndax saa góor jigéen suuf bu mu am yàlla du koy dëpp waaw turki ngi fii saawaay ñëpp ay jullit nañ yéen ci yàlla ibrahima saawaay gaama la fa nañ ko sànneewoon si safara bi ak yeneen ak yeneen turki moo gën a riche fuuf sénégal si affaire de islam ay année quatre-vingt-dix yi ñuy dooleel góor jigéen saawaay mais yàlla volcan la taal turki yàqu est ay dégg voilà kon booy Sénégal saawaay xoola gënul turki ah te turki gën a développé tey Sénégal téeméeri junni yoon wala boog góor jigéen ñu ngi ko fi nangu alors ñu waroon àndandoo ñun ñëpp xeex góor jigéen waaw ne góor jigéen mooy suñuy noon ñuy dowal ay lobby franc-maçon di jéem a jaxase maanaam kër diine yi ñooy suñuy noon ñiy teg injustice kumba am ndey kumba amul nday Sénégal ñooy suñuy noon ñooñ nañ war a xeexal voilà mais Sénégal léegi li fi am tamit kaay ma wax la nit yi xam nañ ko ah mooy ay lobby lobby yaa ngi fëpp ah lobby yaa ngi fëpp te loolu vraiment ñu ngi koy déplorer di ko maanaam métitlu di ko nakarlu di ñaan yàlla aussi mu jëlee ko fi mooy lobby yi nga xam ni léegi ñu ngi fëpp ñu ngi sax si kër diine yi noonu la demee xam nañ bu baax nu demee fii képp kuy def xamal ni yàlla xam na lépp. te nit yi dofuñu yasaay noonu la demee alors diggante Cheikh a Diagne ak gars yi moom dara rek laa siy wax muy moo finaal yàlla na si yàlla sotti ndox bu sedd xam nga jàmm salaam xam nga jàmm nañ ñooy ñu fàtte yooyu xam nga concentré autour de l' essentiel quoi parce que dafa sensible te man mii di wax ak yow xam nga ñun ay murit nañ dëkkal ay murit ñooy suñuy mbokk ñooy suñuy xarit ñooy suñuy lépp te heureusement dégguñu leen ñuy wax si coow boobu noonu heureusement alhamdulilah sénégalais yi. sénégalais yi son pas tombe dans le piège. waaw parce que yaakaar naa Cheikh Omar Diagne moom li mu wax noonu bu fekkante ni danger la woon loo xamante ni insulte la maanaam wala wala maanaam danger saawaay xëy na gaan ñun ñi nga xamante nii sax saawaay ñoo ñëkk taxaw dal si kawam waaw fii ku doxul fii ku def lu dul yoon ànduñoo ak yow ak ko munti doon xam nga lu ma la wax nii. noonu la demee mu xaddamu Baaba Lamine Niass la Baaba Lamine Niass doomu Baay Niass la waaw te lu ñu bokk ak moom mu nekk suñ mbokkum taalibe bu defoon injustice barki alxuraanul karim yàlla xam na lu si xol ñu dal si kawam est-ce yaa ngi dégg voilà léegi may ma daaneel may ma may ma daaneel foofu léegi heureusement sénégalais yi tombé wuñu si piège bi piège boobu noonu parce que gis naa ay murit yu dul jeex même kaddu bi ñuy wax ni ñun kaddu boobu sax ñoom moom même kaddu bi la ñuy wax xam lu ma la wax naan gars nañ bàyyi mu sedd xam nga Cheikh Omar Diagne ñu ngi ko bàyyi jàmm na ñooy quoi xam nga waaw yaa salaamu quoi waaw ñu àndandoo maanaam yëkkati drapeau islam si kawam si kaw a kaw muy flotte ñu xeex góor jigéen xeex lobby formation yi fi ne looloo am solo quoi.